yàlla le message président Ousmane Sonko dañu leen yàlla le message président Ousmane Sonko dañu leen yàlla le message président Ousmane Sonko gërëm nañ leen sant nañ leen am nañ ne seen mbokk ngeen def gërëm teew a si waaye di gërëm presse fi teew yëpp di gërëm waa croix di gërëm police yi encadré nañu lii moo lay firndeel lu mu def ñoom ñoo ko di autorisé woon suñu marché le 10 kenn du yàqule dara ma la heure bi jot na jotul su yoon nekku ci lii tàmbali ma la bu fekkente ni bàyyiwuñ ci balance politique yi dinañ continuer seen manifestation yi Macky Sall laay moomu réew mi laay moomu réew mi kenn nag dara ci réew mi kenn nag kon ne dara sa Ousmane Sonko suba waaye Macky dinañ ko wuy ji dinañ ko gunge yóbbu ko mu dem wuy ji bu doxam laalee Macky Sall dinañ ko génne te pare ba